amoon na benn waay bu woppoon ñu koy wax lasaar mu nga dekkoon betani moom ak maryaama ak marta mi mu bokkaloon ndey ak baay maryaama mooy jigéen ji sotti ji lati koloñ ci tànki borom bi fompe ko kawaram moom la cammiñam lasaar woppoon ñaari jigéeni lasaar yónnee ci yeesu ne ko boroom bi sa xarit wopp na bi yeesu déggee xibaar boobu mu ne lasaar de woppam jooju du ko mujje dey wone mu yàlla tey màggal doomu yàlla ji yeesu soppoon na marta ak maryaama ak lasaar bi mu yegee nag ne lasaar wopp na mu toogaat yeneen ñaari fan ci bereb ba mu nekkoon gennaaw loolu mu ne taalibe ya nanu dellu yu de taalibe ya tontu ko ne kilifa gi yàggul dara wa yu de doon nanu la wutarey ak yi xeer nga di dellu yéesu ne xanaa du bëccëg fukki waxtook ñaar la kuy dox bëccëg du fa kastalu ndax te day gis leeru àddina si kuy dox guddi dina fa kastalu ndax te leer gi nekkul ci moom yéesu wax loolu teg ca ne sunu xarit lasaar nelew na waaye maa ngi dem yee taaliba ya tontu ne boroom bi bu nel kay kon dina wér yeesu dafa bëggoon wax ne lasaar dee na waaye taaliba ya dañu xalaatoon ne mbir nelew rekk lay wax ci kaw loolu yeesu wax ci lu leer ne lasaar dee na bég naa ngir yéen ndax li fa nekkul ngir seen ngëm gina dëgër waaye nanu ko seeti noonu tomaa ki turam di tekki seex bi daldi ne yeneen taaliba ya nanu dem nun itam deyandoo ak moom bi yeesu ak seemu fekk ne bi ñu dence lasaar ak léegi mot na ñeenti fan betanim ma nga woon ci wetu yerusalem diggante bi motul woon sax ñetti kilomètre yawut yu bari ñëwoon nañu kir marta ak maryaam ngir defal leen ci seen deewu càmmiñ bi yeesu ñëwee marta yëg ko dem di dajeek moom fekk boobu maryaama nga toogoon ci kër ga marta ne yeesu borom bi boo fi nekkoon de sama càmmiñ lii du dee waaye xam naa ne fii nu toll sax loo ñaan yàlla mu may la ko yeesu ne ko sa càmmiñ dina dekki marta tontu ko ne xam naa ne dina jog bésu ndekkite la keroog bés bu mujj ba yeesu ne ko man maay ndekkiteli maay dund gi ku ma gëm boo deeye it dinga dund rax ca dolli kuy dund te gëm doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne waaw borom bi gum naa ne bi di doomu yàlla ji wara ñëw àddina bi marta waxee loolu mu daldi dem woowi maryaama ne ko ci pett kilifa gaa ngi fii mu ngi lay laaj bi maryaama déggee loolu mu daldi jogg gaawantu dem ci yeesu te fekk duggagul woon ci dëkk ba waaye ma nga woon betey ci béréb ba mu daje woon ak marta noonu yawut ya nekkoon ci kër ga di defal maryaama gis ko mu ne beret gen mi ñu daldi ko topp def ne day jooyi ci bàmmeel ba bi maryaama ak senag ci yeesu boo gis ko mu daana ci tànkam ne ko borom bi boo fi nekkoon sama càmmiñ du dee yeesu gis ne mu ngi jooy te yawuti ànd ak moom itam ñu ngi jooy mu daldi jaq am naqar wu rëy mu ne leen fu ngeen ko denc ñu tontu ko ne kaay gis sang bi yeesu jooy noonu nag yawut ne gis ngeen ni mu ko bugge woon waaye am na ci ñoom ñu doon wax naan moom mi ubbi bëti gomba gi ndax mënul woona fexe ba lasaar du dee yéesu dellu am naqar wu rëy daldi dem ci bàmmeel ba pax la mu ñu yett ci doj ube ko xeer yeesu ne dindi leen xeer wi marta jigéenu ku dee ne ko boroom bi dina xasaw xun fi mu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan yeesu ne ko ndax waxuma la ne boo gëmee dinga gis ndamu yàlla ñu daldi dindi xeer wa yeesu xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay sant ci li nga ma déglu ba noppi xam naa ne doo jóg ci di ma déglu waaye dama koy wax ngir nit ñi ma wër gëm ne yaa ma yónni bi mu waxi loolu yeesu woote ak baat bu dëgër ne lasaar ñëwal ci bit ne ba daldi génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak lox yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yeesu ne leen tekki leen ko bàyyi ko mu dem yawut yu bari ci ñu ñëwoon kër maryama te gis li yéesu defoon dal di ko gëm waaye amoon na it ñu demoon ci farisen ñi ya nettali leen la yéesu defoon farisen ñi ak sëriñ su màgg sawoo kureelu attekat ya ne nit kii kat kéemaan yi muy def a ngi bëgg bari lu ñuy def nag ndaxte sunu ko bayee mu jàppoo ni ñépp dinañu ko gëm te kilifay room yi dinañu ñëw daaneel sunu kër yàlla gi tas sunu réew amoon na ci ñoom ku ñuy wax kayif te mu nekkoon sëriñ bu mag ba at mooma mu ne leen xamuleen ci mbir mi dara xanaa xamuleen ne kenn nit rekk dee ngir ñépp mooy li gën ci yéen bu ko defee réew mi du tas loolu kayif waxu ko woon ci sagoom waaye li mu nekkoon sëriñ bu mag ba at mooma moo tax yàlla xiirtal ko mu ne yeesu dinaa dee ngir réew mi du woon rekk ngir xeet woow waaye ngir itam doomi yàlla yi tasaaru yépp dajeloo nekk benn keroog la njiiti yawut ya dogu ci rëy yeesu taxoon na bo yeesu dootul doxantu ci biir yawut ya noonu mu dem ci gox bu jege manding ma ci dekku afrayim foofa nag la toog ak ay taalibem bésu jéggi baa di màggal yawut yaa moo ngi doon jub bu ñu bare ci waa àll bi di dem yerusalem bala boobu ngir sangu ji set ñu ngi doon wut yeesu tey waxante ci kër yàlla ganaan lu ngeen ci xam ndax dina ñëw ci màggal gi walla deet sëriñ su mag sa ak farisan ya dal di santaane bu xamee fu yeesu nekk mu yégle ko ngir ñu mën koo jàpp juróom benni fan laata màggalu besub jéggi ba yeesu dem na betani dekku lasar mi mu dekkal foofu ñu defaral ko fa marta mu ko doon seddale te lasaar bokkoon na ci gan ña noonu maryaama daldi jël liibar lati koloñ ju raxul ju wax nard tey jar lu bare bare mu sotti ko ci tanki yeesu ba noppi fomp ko ak kawaram xetu lati koloñ gi gilli ci kër gi ci taalibe yeesu ya muy yuda iskariyo mi ko nara wor dal ne lu tax jaaye wuñu lati koloñ ji peyu atum lem ma jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ndaxte sàcc la woon moo yoroon boyetu xaalis bi te daan ci sàkk waaye yeesu ne ko bàyyi ko jëkkoon mu denc ko ngir bés bu ñu may suul miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faw bi ñu yegenee yeesoo nga fa mboolom yawut mu bari daldi dem betani yeesu rek yóbbu leen fa woon waaye dañu bëggoon a gisaale lasaar mi yeesu dekkaloon sëriñ su mag sa dogu ci ne dañuy reyaale lasaar ndaxte moo waral yawut yu bari dëddu leen gëm yeesu ci ëllëg sa mboolu mu bare mu ñawoon ci màggalu bésu jéggi ba yëg ne yeesoo ngi jëm si yerusalem ñu daldi jël ceri garab genn di ko teeru ñuy xaacu naan Hosaana yow mi ñëw ci turu borom bi ku barkel nga na yàlla barkel buuru Israyil Yeesu wut cumbur war ko ndaxte mbind mi neena na bu leen ragal waa Siyon gis ngeen seen buur a ngi ñëw war mbaam mu ndaw yooyu yépp taaliba xamuñu woon ci saasa lu muy tekki waaye gannaaw bi mu yéesu feeñe ñu fàttaliku ne mbind mi yëgle woon na loolu ci moom te amal nañu ko ña nekkoon ak yéesu ñépp bi muy wooye lasaar mu génn ci bàmmeel ba te mu dekkal ko demoon nañu nettali lañu gis looloo tax mbooloo ma teeru ko ndaxte yegoon nañu firnde boobu farisen yi nag di waxante naan gis ngeen munu leen ci dara ñépp a ngi koy topp ci mbooloo amoon na ci ay gerek yu bokk ci ñu ñawoon yerusalem ngir jaamu yàlla diirub màggal ga ñëw nanu ci filip mi dëkk Betesayda ci diiwaanu Galile ne ko sanga bi danoo bëggoon a gis Yeesu Filip dem wax ko ànde ñu ànd waxi ko Yeesu mu tontu leen ne waxtu wi ñu wara feeñale ndamu doomu nit ki jot na ci dëgg-dëgg maa leen koy wax fiig pepp dugub ji wadd ci suuf jaarul ci dee du mun a weesu li mu doon pepp dong waaye bu deeyee dina jur pepp yu bari ku bëgg bakkanam dina ko ñàkk waaye ku ko bañ ci àddina si dina ko denc ngir dund gudul jeex gi ku bëgg doon sama surga na ma topp bu ko defee fu ma nekk fa nekk moom itam ku may liggéeyal sama baay dina ko teral léegi nag dema jàq lu may war a wax mbaa du dema naan baay musalma ci li nara xew waxtu wi ñëw déedéet ñëw na sax ngir jaar ci waxtu woowu baay màggalal sa noonu ñu dégg baat bu jóge asamaan naan màggal naa ko ba noppi te dina ko màggalaat mboolo ma fa teewoon te dégg baat ba daldi ne dennu la woon ñeneen naan malaaka doon wax ak moom waaye yeesu ne leen taxuma baat boobu julli waaye yéena tax atteb adina si jot na léegi ñu dàq malaaka mu bon mi jiite àddina si te man bu ñu ma yëkkatee ma tiim suuf dinaa wootal nit ñépp ci man ci baat yooyu la doon misaale ni mu wara faatoo mboolo ma tontu ko ne jàng ci sunu téereb yoon ne almasi bi dina sax bu faw kon yow nan nga mën waxe ne doomu nit ki dina yëkkati kuy doomu nit kooku yeesu ne leen leer gi dootul yàgg ak yéen dox leen ci bi ngeen de am leer gi ngir lendem bañ leena bet ndaxte kuy dox ci lendem doo xam foo jëm ci bi ngeen dee am leer gi gëm leen ko ngir ngeen doon doomi leer bi mu waxi loolu ba noppi yéesu dafa dem nebbatu ji leen firnde yi mu leen won yépp taxul ñu gëm ko ngir li yonent yàlla esayi waxoona am boroom bi ana ku gëm sunu waare kan la boroom bi won dooleem mënuñu woon gëm ndaxte esayi dafa waxaat ne yàlla defa gumbal seeni bët def ba ñu dëgër bopp ngir seen bët bañ a gis seen xel bañ a xam ñu bañ a wàññiku ci man ngir ma weral leen isay dafa wax loolu ndaxte gisoon na yéesu yeesu te mu ngi doon wax ci ay mbiram fekk na ci biir njiit yi sax ñu bari gumoon nanu yeesu waay farisen ya tax feesaluñu ko ndaxte dañu ragaloon ñu dàq leen ci jàngu ba ngeremu nit aleen ginaloon ngeremu yàlla yeesu yëgle ne ku ma gëm gëmuloo ma waaye gëm nga ki ma yónni ku gis gis nga ki ma yónni ni ak leer la wàcce ci àddina ngir ku ma gëm du des ci lendem gi ku degg samay waxte topp leen du man maa koy daan ndaxte wàcc ma ngir daan àddina waaye dema ñëw ngir musal ko ku ma beddeeku te nanguwul samay wax dina fekk fii li koy daan sama njàngale koy daan keroog bés bu mujj ba ndaxte waxuma ci sama coobare waaye baay bi ma yónni ci boppam moo ma sant li ma wax ak li ma war a jàngale te xam naa ne li muy santaane day joxe dund gudul jeex kon li wax dama koy wax ni ko baay bi sante laata màggalu bésu jéggi ba la woon yeesu xamoon naa ne waxtu wi mu war a génn àddina dem ci wetu baay bi jot na ku bëgg ñoñam yi nekk ci àddina la te bëgg na leen ba fa bëggeel mun a yem yeesu ak taaliba yaa ngi doon reer fekk na boobu seytaane xiirtal yuda doomu simon iskariyo ngir mu wëri yeesu yeesu xamoon naa ne joxoon na ko sañ-sañ ci lépp xam it ne ci yàlla la jóge ci moom lay delluwaat mu dal di jóge ci reer ba summi mbubbam dal di jël ab sarbet laxas ko ci ndiggam noonu mu sotti ndox ci ab kël dal di tàmbale di raxas tànki taaliba ya di leen fomp ak sarbet ba mu laxasaayo bi mu ak sebo ci Simon Pierre kooku ne ko bi ndax yow danga nara raxas samay tànk yeesu tontu ko ne xamoo fii mu nekk li may def waaye dinga koo xami piyeer ne ko déedéet duma nangu mukk nga raxas samay tànk yeesu ne ko su ma raxasul doo bokk ak man dara simon piyeer ne ko kon nag boroom bi bul yem rekk ci tànk yi waaye raxasaalel lox yi ak bopp bi yeesu ne ko ku sangu ba noppi soxlaatul raxas lu dul ay tànkam ndaxte set na wecc yéen nag set ngeen waaye du ñepp fekk yeesu xamoon na kii ko nara wor looloo tax mu ne setu leen yéen ñepp bi mu leen raxasaale seeni tànk ba noppi yeesu dafa solaat mbubbam dellu toogaat ne leen ndax xam ngeen li leen defal yéena ngi may wooye kilifa gi ak boroom bi te wax ngeen dégg moom laa kon bu fekkee ne man mi boroom bi tey kilifa gi maa leen raxasal seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bayil naa fi royukaay ngir ngeen di jëf ni ma jëfeek yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam ginu la màgg mbaa ndaw ki ko yónni gannaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu di ngeen bég yéen ñépp taxu leen may wax xam naa ñi maa tànn waaye li wax faw mu am bi ñu naan kii lekk sama dugub wéq na ma maa ngi leen koy wax ci teel balaa looloo ñëw ngir bu ñëwee ngeen gëm ne maay ki nekk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku nangu kenn ci ñi may yónni nangu nga ma man itam te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni bi yeesu waxee loolu ba noppi mu jàq biral ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taaliba yi di xoolante te xamuñu kon lay wax ka yeesu bëggoon te mu bokkoon ci taaliba ya ma nga soonu woon ci kaw yeesu kooku la simon piyeer liyaat ngir mu laaj yeesu ki ko taxoon di wax taaliba ba daldi walbati ko ci yeesu laaj ko ne boroom bi kooku kan la yéesu ne ko dinaa càpp dogu mburu ci ndab li ki ma koy jox kooku la noonu yeesu jël dogu mburu càpp ko ci ndab la daldi koy jox yuda doomu simon iskariyo naka la yuda jël dog wa seytaane ci moom yeesu ne ko gaawantul ci li ngay def amul kenn ca ña toogon ku xam lu tax mu wax ko lool waaye gennaaw yuda moo yoroon boyetu xaalis bi am ñu xalaat ne yeesu defa ko wax mu dem jindi li wara ci màggal gi walla mu ne ko mu dem sarax miskin yi yu yuda nag jël dogu mburu ma daldi di génn ci saasa boobu guddi woon na bi yuda génnee yeesu ne léegi nag ndamu doomu nit ki feeñ na te ndamu yàlla feeñ na itam ci moom te bu ma feeñalee ndamu yàlla yàlla itam ci teewaayam dinaa feeñal ndamu doom nit ki te dinaa ko def léegi samay soppe sama nekk ak yéen dootul yàgg di may seet waaye maa ngi leen di wax léegi li ma waxoon yawut ya fa du ngeen fa mën maa ngi leen di jox ndigal lu bees buggante leen nangeen di buggante ni ma leen bugge ni ñuy xame ne samay taaliba ngeen mooy ngeen buggante simon piyeer laaj ko ne boroom bi foo jëm yeesu ne ko fu ma jëm mënuloo ma fa topp léegi waaye dinga ma toppi ci kanam piyeer ne ko boroom bi lu tax mënuma la topp léegi attan naa joxe sama bakkan ngir yow yeesu ne ko attan nga joxe sa bakkan ngir man ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax bala ginaara sab dinga ma weddi ñetti yoon